tamit bi nee na ma maa ngeeg fas goo xamante ni moom commerçant yi la yitteel kon commerçant yi yëpp nañu daw wutali ko ndax nee na fasam googeekat ku mu ko jox jaay ma jaay ma dina la sonal waaye tamit sëñ bi nee na wàllu kaaraange yàlla may na ko ca lool ndax nit kat bu ubbeekoo faw mu wut lu ko aar waaye tamit sëñ bi fàttewul góor ñi nga xam ne dañoo néew kattan nee na am na garab gu ca baax lool sëriñ bi nag dina yëngu ci tawat yi nga xam ne dafa sonal askan wi lool bokk ci ndoxum ak yeneen tawat yi nga xam ne dañoo lamboo ak askan wi sëriñ bi nag ku ko bëgg gis wala nga bëgg a dégganteeg moom ni ngay def yomb na lool da ngay woote ci numéro bii ma lay waaj a jox 78 475 27 82 ma baamtu ko 78 475 27 82 képp ku jokkoo ak Serigne Cheikh Ndiaye Njare yal na sa aajo faju ñu door xibaar yi dooree ko ci doomu Sénégal bi ak France tudd Malang Sarr moom nag mu ngay football ca Chelsea soo moytuwul nag dina jógee ci club boobee li ko waral moo di amu fa temps de jeu mën na nañu wax ne sax footballut ak waa club boobee club bu ñu naan Besiktas nekk ci réewu Turki dañu ko bëgg li ñu bëgg moo di jëlee ko Chelsea xaatimal ko contrat yóbbu ko ci Super League ba mu doxal Besiktas googee nag seen président bu bees bi mi ngi tudd Hassan Arat moom dafa bëgg doomu France bi ak Sénégal tudd Malang kon nag soo moytuwul dina jugee ca Chelsea dem ca Besiktas doxal xibaar boobu foot mercato moo ko xamle ñu jugee ci Malang Sarr waaye clubam di Chelsea duñu ko génn gum bu ñu sukkandikoo ci Daily Mail waa Chelsea noppi nañu ngir jaay gone gii tudd Conor Gallagher moom nag doomu Angleterre la ma nga ca Chelsea li tax nag moo di Chelsea dañoo bëgg dolli seen dooley équipe boobe loolee sax Mauricio Pochettino dëggal na ko bi ñu jàkkaarloo ak Everton ba noppi jëlee ca ab défaite li mu xamle moo di club bi faw ñu dolli doole ji pour ñu jënd ay jour nag faw ñu jaay ay jour ngir mën a def loole kii nag bokk na ci ñi ñu bëgg a jaay su fekkee nag Chelsea noppi na ngir jaay ko Tottenham noppi nañu ñoom ngir jënd ko kaalis bu ci Chelsea laaj noppi nañu ngir def ko ca bu ñu sukkandikoo ci Daily Mail ñu jugee ci Gallagher ak waa Tottenham ak seeni bëgg-bëgg waaye Chelsea moom duñu ko génn gum démb bi ñuy jàkkaarloo ak Tottenham ñaar ñiy yeggali wuñu match ba li ko waral moo di ab muy seen capitaine bi di Reece James ak seen góol bi di Robert Sanchez li ko waral nag moo di ab blessure Chelsea nag jamono jii bari nañu lool ay blessé am nañu dix jours yoo xam ne dañoo am blessure bu dee Reece James moom dinañu ko defal ay test maanaam dinañu saytu blessure bi mu am xool ba xam dina yàgg am du yàgg xibaar boobu Daily Telegraph moo ko xamle ñu jugee ci waa Chelsea ak seenu xibaar bu naqari jël doomu itali bi odo Odoje moom nag ma ngay football ca Tottenham di fa amal ay jaloore bu ñu sukkandikoo ci foot mercato jubo ci lépp am na ci diggante doomu itali bi ak waa Tottenham ngir mu yokk kontraam contrat bu gudd nag la ko waa Tottenham bëgg a xaatimal jamono ji daanaka lépp yemb na juboo nañu ci lépp bu dara soppeekuwul ci diggante bi fan yii di ñëw dinañu ko siiwal moom doomu itali bii di Udogie mu yokk contrat am foofee ca Tottenham bu ñu sukkandikoo ci Fabrizio Romano ñu jugee ci waa Tottenham ak seeni bëgg-bëgg jël doomu Argentine bii di Lisandro Martinez di football ca Manchester United gën ngeen ko gis nag mu football li ko waraloon moo di ab blessure jamono ji nag mi ngi yëg tan bu baax tey jii ñëw na ca entraînement ba waaye bokkul woon ci groupe bi dañu ko beroon muy cukki-cukki kon nag bu dara yàggut dina mën a bokk ci entraînement collective bi jàppale Eric Ten Hag ca defence ba muy Lisandro Martinez xibaar boobu nag xibaar bu neex la soxal waa Manchester United. ñu jugee ci Lisandro Martinez ak xibaaram bu neex waaye këlëbam di Manchester United duñu ko génn gum doomu France bi tudd Anthony Martial soo moytuwul bu saison bi ñu nekk jeexee dina jugee ci Manchester United. kontraam nag amoon na beneen at boo xam ne su neexee waa Manchester United ñu yokk ko ca mu toog foofee doxal jamono ji moom waa club boobee noppi wu ñu ngir yokku ca benn at boobee kon bu dara soppeekuwul ci diggante bi saison bii ñu nekk bu jeexee doomu France bi mën naa jugee ca Manchester United gratuite xibaar boobu sa Athletic moo ko xamle ñu juge ci Anthony Martial ak waa Manchester United jël doomu Portugal bii di Rafael Leao moom nag weer a ngi nii footballu li ko waraloon moo di ab blessure jamono ji nag tane na te nekk na à cent pour cent mercredi di àllarba clubam di AC Espagne ñooy fekki Newcastle match boobee doomu Portugal bi noppi na ngir départ ca titulaire ci Pioli mi koy tàggat képp lay aju mu départ la ko wala mu teg ko ci banc bi waaye jamono ji moom doomu Portugal bi noppi na à cent pour cent ngir door match boobee loolee la Sky Sport xamle ñu jugee ci Raphaël Leao ak xibaaram bu neex dem ca waa Paris xibaar bii tamit neex na ndax doomu France bi tudd Sayer Emery amon blessure wér na moom it nekk na à cent pour cent mercredi di àllarba bu Paris di jàkkaarlu ak Borussia Dortmund noppi na ngir départ titulaire ca match boobee doxal jàppale Luis Enrique muy Seer Emery Seer Emery moomee sax duñu ko bàyyeegum bu ñu sukkandikoo ci foot mercato jubo ci lépp am na ci diggante waa këram ak waa pari ngir gone gi yokk ko contrat foofee contrat wu juróomi at nag la ko wa pari bëgg a xaatimal gone gi nag ba léegi majeur agul maanaam amagul dix-huit ans kon pari mënuñu koo xaatimal contrat bu gudd waaye bu ñu yeggee ci weeru mars deux mille vingt-quatre dina am dix-huit ans bu boobaa nag Paris li ñu bëgg moo di xaatimal ko contrat wu juróomi at mu toog ci seenu club jàppale leen ndax li muy def mën na ko lool te footballu France am nañu lool yaakaar ci moom jubo ci lépp am na nag Paris li ñuy xaar moo di ñu yegg ci weeru mars 2024 ñu door a yokk contrat bi xibaar boobu foot mercato moo xam xamle ñu jugee ci Zaïre Emery ak waa Paris seenub xibaar bu neex dem ca waa Bayern de Munich ñoom nag bàyyeeguñu Ronald Araujo ba léegi bu ñu sukkandikoo ci sport waa Bayern de Munich dinañu def lu ñu mën ak lu ñu mënul jëlul ngir xaatimal contrat doomu Uruguay bi nee nañu noppi nañu ngir fay ko salaire bu baax xaatimal ko contrat loolee la sport xamle Barcelone nag bëggu kaa ñàkk ñoom waa Barcelone ni ñu bëgg moo di yokk contrat ba noppi yokk salaire bi ñu koy fay waaye Barcelone nag bu yokk salaire am munu koo fay yenn salaire yi ndax Barcelone dafa am problème ci fer play financier kon su koy fay salaire tamit du ko mën a yokk yenn yokk yi waaye bu dee waa Bayern bu baax kon nag Ronald ko su fekkee xaalis képp la bëgg Barcelone mën na koo ñàkk ndax Bayern nee nañu noppi nañu ngir def ci moom xaalis bu ñu sukkandikoo ci sport ñu jugee ci Ronald Araujo ak waa Bayern de Munich ak seeni bëgg-bëgg jël seen ancien joueur bi tudd Luis Gustavo ay jamono nekkoon na foofee ca Bayern de Munich club bu ñu naan Marseille it doomu Brésil bi jaar na fi waaye club bi mu mujjoon moom moo di Al Nassr nekk ci réewu Arabie Saoudite foofee sax la ñancoo Sadio Mané ak Cristiano Ronaldo nekk